di am kontan ak kontante ci and bi ngeen ànd ak ñun ci seen émission tektal di wax ne seen bëtt sun mbégte jëm seen nopp sun lamiñ seen waral sun farlu tektal nak ñew na ko fo xamna ne ki ñuy jël gan gu bes tak la buñ dajeegul ci mbuss ñu bëgg xam buñ ko jëlé ba pare buñ paré ngeen xam ne ngeen ne ma lan jërul woon mu fi jaar wala yex na fe jaar wara waron na fe téla jaar te won na fi manam mën na place bi koko di kan tey problème mu adressé ko fu ñu koy def fu ñu koy adressé mooy doon suñu problème xamuñu imam lañ koy wax xamuñu ustaas lañ koy wax xamuñu sëriñ bi lañ koy wax xamuñu docteur lañ koy wax mais yooyu yëpp dina leer ci kanam ustaas Alioune Fall imam Alioune Fall docteur Alioune Fall sëriñ Alioune Fall looy nuyoo ñiy seetaan émission tegtal bi nga xam ne àdduna wërngal képp dañ koy béggee ci LCS alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي نيو يين نيغا خامتاني يين مبوكي تريسباكتاتور ري سيتان ال سي اس نيغي لين نيو دي لين زيار جيرجوف آه، سيرين علي فال بان ويو با بار بلا نيو غنا سوري ليما بغا ويو موي علي فال علي فال با سيرين با كي با استاذ با امام مي علي فال واه Aline Fall bi ni daylal ñun xam nañ moy kan mais yeen ñi seetaan lañ bëgg xam ngeen xam moy kan Aline Fall bu la bëggono wax yow manam walum faj ak ñaan da nga gis ñëpp di faj ak ñaan ngay faj ak ñaan wala da nga mag gis ñëpp di faj ak ñaan ngay faj ak ñaan wala da nga bëgg a faj ak ñaan wala da nga dond faj ak ñaan wala faj ak ñaan dafa xew nga ne ci. wa alhamdullilah dama ci sawara tontu limay wax. bokkuma ci nit ñi nga xam te ne dañuy toog naan dama koo jàngi Mali dama koo jàngi gi waaw bëgg nañ xam foo jàngee yooyu yëpp mu leer dama koo def nii donn ma ko ci sama ndey donn ma ko ci sama baay donn ma ko ci sama benn maam dama koo jàng mën ko xam ko koo ku la jàngal ak foo jànge waaw nga juddoo Mhm. parce que yow pour leeral Alioune Fall bii ñuy dalal moom naa naataango la mi ngi nekk ci rajo yow da nga fay invité ay sëriñ na ki fajkat ki ñaankat ku jékki jekk gis Alioune Fall muy faj dina nur ne ah waa ji baadu da doon gis lii dem ci gaa yi mu ne xaar mu ñëw ci man ñen ñi mën nañ ko jàppe dëgër fit ma bëggoon xam yow loolu loo ci mën a leeral yow animateur nga buy invité nit ñi wala sëriñ nga wala pour muy leer alhamdulilah mbir mi moo ma bëggal boppam nag déedéet mbir mi moo bëggal boppam euh, ndax euh, ba may nekk xale euh, ci laa doon ànd ak ay fajkat daan faj di jàng ak ñoom ñu jàng ci ñoom faj di jàng ñooñu bu ñu leen waxee kenn ki Mouhamed Gueye la tudd ah, non siwuñu nit ñi xamuñu leen may ànd ak ñoom di ànd ak ñoom am ci lu bari mujj gi maa ngi liggéey si ay société di dem di journalier wu man di journalier wu mais ci biir loolu nit de ànd ak man sax jékki-jékki dara daal ko mën ko defal li ak lii wala ma defal ko loolu mu wér kooku dafa may booleeg keneen mais boo ñëwee du ma intéressé sax man musuma yaakaar ni suma dund dinaa ci nekk nii. yow da dem. mu dem baax na ba biir ba un ñu nekk euh, suñu rajo bi FM senegal fi may def émission bi oustaz yi di xëccoo waxtaanee man leen comme man mën naa faj baal ma jël émission faj bi lu nekk di àll dafa am yoon bu mu koy jaarale Eh, bi ma jëlee kii bi di invité ay sëriñ ñenn ci sëriñ si nag suñu ñëwee dañuy def ay pénatium te ni man na man waa man pour man ñi ma invité ñoo ma gën a aay non billahi man kii moom dootu fi jaar am na mës naa ko invité fii borom rek laa ko laaj mu nekk ci biir nit xamu ko fu mu nekk ci nit rek xamu ko ma gis loolu nekk benn pénalti bu ma remarqué ci yenn sëriñ si ñu bëri. ah coup yi nag nan la demee comme bokk na ci dangay gis eh, kenn ñëw. ni ma dem naa ci diw bu doon télé damay jaar ci turam. dem naa ci diw sa émission laa ko déggoon fajuma faj naa wéruma man ko ban feebar la mun ma temps la man ko ñëw ma fajal la te boobu maa ngi sol tenue di journalier wu ci usine. di def émission. bi rajo di jàngale boo bokk nekk imam léegi bi ma ñëwee ba euh, waa ji ñëw xam ma ko ma jël ko woo ko mu ñëw ma defal ko ay garab faj ko. kooku lu mu doon faju bon ñii ngóoro lañ doon faju am ñoom te ni émeraude lañ doon faju am te ni dañ leen liggéey yoon am bëri na daal su ma ko doon lim mais kooku su ma ko fajee wala ma defal ko loolu ba mu gis dafa may booleek keneen mu jigi patron bi may liggéey na man dama ko gêné dootu man liggéey amalu ma ko njariñ ci usine bi ndax téléphone yu bari nit ñi dañuy ñëw ba ci buntu bi toog di ma xaar pour bu ma génnee jox leen li ma leen di jox dem mu jigi mu jigi bu may xëy si damay indaale saak sama dig ginnaaw sama saak sama ginnaaw mu gi ma def ne léegi su ma wàccatee 4 heures ma faj ba guddi ma ñu ma xëy benn jour sama tànk di metti xaw ma la moom ma toog commencé na affaire bi suba ba ngoon dañ may wër suba ba ngoon nit dañ may wër ku dem indi keneen loolu la ma faj bi nangoo waaye doon ma ko ci ndey doon ma ko ci bàyyi dama ko jàng man mais léegi est-ce que ñi nga doon invité ci émission yi ñu jekki jékki gis la ngay faj est que ay tuuma topp la foofu boo xam ne yëngu ko yow sa bopp ñu jàppee leen da ngaa dëgër. non non non non non non ñoom tumawuñ ma ndax ñoom ci boppam bëri na ci ñoom tamit ñoom dañ doon ñëw di samay garab di ko jox seen i client billahi alladi la ilaha illa huwa kon ñoom ci fajkaat ci boppam wala gars yi ci boppam am nañu te ni jël nañ samay matériel jox ko seen i nit. Oustaz Alioune Fall mbokk seetaan seen émission tegtal Oustaz Alioune Fall war naa leen fa nga xam ne que foofu lay doone imam ma dem wanaat leen fi nga xam ne que dafay doon oustaz di jàngale. ñu dem ñëw tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraa nga àndandoo ñun ci seen émission tektal ñuy dalal ki di Aline Fall Aline Fall gis nañ fi fi mom dugg nga ci biir xalé yi di jàngale ñu bëggoon xam jàngale mom lo bëgg di ci wéy la wala da nga am heure boo xam ne da nga koy yor pour jàngal xalé yi. waaw euh, soo gisee may jàngale chaque jour damay jàngale 8 heures ba 9 heures damay joxe cours alquran ndax dafa nekk tiyaaba bu reuy duma ko sàggane de yàlla moo ni saabaqul xayraat na ngeen njëkkante ci yiw yi. yiw yooyu laay njëkkante moo tax chaque jour moo tax may xëy si 9h mais ku bëgg a ñëw moom mën ngaa teel a ñëw rang mais man 9h laay commencé. ndax 8h ba 9h damay joxe cours à part ndax dafa am daraja bu ci yonent bi wax bëgguma ñàkk ko yonent bi salaa salaam neen jërë ngeen jëf mbokk yi bindal bindal maire bi foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi bët yi neexul de nga bindal ko ñi ñi wax ci saal bi na noppi numéro Aline Fall gis nga kum rëcc ci rek du baax ci yow bind nga 77 505 16 55 77 505 16 55 bindal beneen bi 77 148 54 54 77 148 54 54 Oustaz Alioune Fall Imam Alioune Fall wala Serigne Alioune Fall nekk ci tali bu mag ci fi wetu fi ñu defaree lal yi nga fekk ko fi nga diis ko su soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëlewul dara te mën na lépp

li nga xam ne que mooy li gën a soxal askan wi muy wàllum feebar yi mm-hmm. ndoxum siti mm-hmm. sonal na jaam ñi sëriñ si wax dañ koy faj bari na mm-hmm. askan wi moom it mu bari ci ñoom te tëfee jóg ñu bëggoon xam problème bi fan la nekk ba xam yow nag yow ndoxum siti moom gaa la ci man wala yaa ci man li ma gën a neex waaw ñu wër ba sonn nag man laa soxla ma ku tëg ku tëg comme te sangul nañ ko fu ne sóob nañ ko fu ne jox nañ ko mu naan ba fan bu ñëwee ndoxum si lu mu garaaw garaaw une semaine su fekkente ni une semaine boobu amul na la woo Cheikh Taali ne la Aline Fall faj na ma si ndoxum siti une semaine wérul soo ko waxul yow ci télé bi yow baaluma la ko yàlla ñu ko yàlla àtte li wala nu mu demee noonu da nga xoolal ñi ñam xam nañ ñam xam nañ li may wax ci une semaine su doon temps bi matal dama lay wax ndoxum siti ci catu karaw ba weewu tànk ci suuf ni muy def doomu aadama defal ñu gis maanaam nit ki nga xam ne que mi ngi wér ne cocc xëy am ndoxum siti lan moo ko koy jox ak bu ko dalee nan lay xam ne moom mi ko dal ndoxum siti dafay jàpp karaw ba karaw gi day commencé dagg su dee si doomu aadama bi mhm. mooy gis karaw gi di ruus muy ci am nañ ci ay diw bopp yu baax sax ci karaw mhm. bu dee ndoxum siti bu la jàppee ci bopp da ngay gis sa yaxu bopp yi day metti ndoxum siti su jàppee nit ci bakken da ngay gis bakken bi lee day dem bay bor yi wala muy génn ay deret wala nga gis muy euh, mel ni amee sinusite ndoxum siti day jàpp nit si bëñ nga gis bëñ yi day commencé yàqu ndoxum siti su jàppee nit ci ay da ngay gis tuñ yi day commencé xonq ndoxum siti su jàppee day dem ba noppi yi day mel luy riir ba pare di xasan si biir ndoxum siti su jàppee loosu nit dootul mën a tourner da ngay gis day mel ni yii dafa mooy moom la tubaab yi def arthrose du mën a gestu daal du mën a gestu ndoxam si di su duggee ci biiru nit moom mooy dem ba jàpp ko mu def ko ulcère nit ñi nag da ngay dégg ñu naan damay faj estomac estomac kenn du ko faj cër la ci cëri doomi aadama yi estomac cër la ulcère mooy feebar bi mooy feebaru góom mhm. gaa yi xamul nañ ñoppi mhm. na ñoppi kon estomac du dara ab cër la rek cër la rek comme ñu ni damay faj bakken kuy faj bakken kooku <laughs> a ngi dégg damay faj ulcère la feebar bi tudd mhm. ulcère boobu ci kattanu yàlla bi iznillahi taala lu mu dal dal nit su méttee ci tàng-tàng bu ñëwee moo ko joxee garab mu sedd bi ci fi mu toog du dem ñëwaat sama samay faj naa la wax bi ci gën a sori bi ci gën a sori euh, la mooy bi ci gën a sori mooy datu un mois bi mais ku ci ñëw une semaine te gisoo résultat laa la wax lool lan la li la tëb bay dem un mois lan la tëwuma de la wax mi lan la tëwuma de tëwuma de traitement bi moo laaj loolu bu loolu lan la pour ñu génn ci hémorroïde picc bi pour ma delloo ko il faut mat un mois mais un mois moom doo ci def temps mort du ci am. billaahi taala bi idnillah mbir mi nag du man du garab yi yàlla la. mais da dégg ñoo xam ne que dañuy critiquer léegi sax ne sëriñ waroo fi nekk di joxe ay bés yi ngay faj ak mel noonu parce que nit xamal sa faj ak sa man-man mais yàlla mooy def li ko neex. la moo traitement bi lii nii lañ koy traité la moo tax lii nan nii koy traité. man damay joxe jour man mais léegi ñu bëggoon xam nag say garab fu muy jógee. waaye man fii laa man fii laay jëlee garab yi bismillah ut samay garab jeex na. déet yaa yaa dem xasi wala dañ lay defaral indi la jox la wala nu muy dem. amatuma jot boobu. mais dinaa yónni ay nit ñu dem doxal ma ko. amatuma jot boobu mais dinaa seet ñu ma wóolu mais waxuma damay dem jël garab jëndee ko nangam nangam nangami dugub na defuma loolu de yooyu gars yi dox ma dunduñu ko garab bu wér la yàlla moo ko wàccee ngir mu faj nit ñi jeex na mais pas ne dugub fii damay dem ay reen yooyu ay wax la rek. léegi ñëwoon ci doomu ndeyu ndoxu siti muy euh, hémorroïde waaw boo gisee hémorroïde bu jàppee doomu aadama li ci ëpp mooy da gis biir bi day jooy da nga gis day seere léegi da ngay dégg ñu ñoom da ngay dégg ñoom fajkat naan damay faj hémorroïde bi ci biir ak bi ci biti maanaam bi ci externe ak interne loolu amul hémorroïde ah, benn la début bi mooy bi commencé te génnagul boobu début lañ koy tuddee début hémorroïde su génnee si lay nekk nag léegi hémorroïde total kon est déedéet bi ci biir ak bi xam nga Aline Fall ngi ci biir néeg bi ak Aline Fall ngi ci biti néeg bi ah. Ah. commencement feebar bi la soo ko sàgganee yàgg-yàgg day génn waaye kon bi ci biir kay du génn ñoom ñi la ñuy jaawale colopathie mooy kuy seere am na benn patient bu ma ci am billahi hôpital yi gën a mag dem na fii ba sonn wallahi wa rabbil kaaba une semaine laa ko faj bi muy ñëw fii da doon jooy bi mu ñëwaatee laajal ñi ma nekkal dafa ñëw fii di commencé di di yëngal mel ni koy ja jaayu kuy mel ni kuy fecc naan boroom jooy yaa ngi nii jooyatuma man ñi ma xam xam nañ ma ñi may déglu si rajo xam na télé temps bi moo yaatuwul. Euh, non non dina leer fii kay tegtal nga nekk rek tey fi nekk dina leer nañ. bu raay dara ci question yi. lu la neex laajal. lu la neex laajal. léegi ñëwoon ci kon ci rab. rab dama lay wax. rab bu jàppee nit. bi iznillahi taala une semaine. une semaine. ci kàttanu yàlla du waaye ay caaxaan laay wax de. maanaam daal ku ñëw une semaine te rab bàyyi ko na. na la woo na la woo yow yow. yow boo ko waxul ci télé bi yow man baalu ma la rab ku mu jàpp kaa ma wax la yow lay def. képp koo gis muy gént di sëy dafa am far rab mhm. muy góor wala ku jigéen day am cor rab wala far rab nga gis muy gént ndox ñiy gént ndox ñëpp xoolal seen yaakaar day tas ñun seen rab ci géej la nekk xam képp koo gis nga xamante ni day gént ay liir. waaw. xale yu liir waaw. wala di gént tubaab maam nit ñu weex wala ay borom tëni wala di gént di xeex kooku dafa amee rab boobaa dañuy yaakaar mu tas seen loxo dara du toog lu ñu am mu dem loxo yi dafa bënn kuy gént gis kilifa nag. même kilifa bëri na kilifa yu ñuy gis gént di leen gis loolu rab moo ko indi mooy ñëw di la jël melokaanu kilifa di ko feeñ. ñu am rab dañoo bari Sénégal xam nga la moo tax ñun dañoo bàyyi alxuraan bi war a faj ñu bàyyi ko dummoo yu dem ci xam bi yeeg xërëm yeeg njabar ji te loolu yàlla da ko ter léegi ku rab dul jàpp nag lan lay gént ku rab ñett la yonent yàlla bi salaa salaam nee na gént ñett la gént ñett la mooy benn bi ci yàlla la jóge mooy bi gën a baax mooy nga gént xéewal bu jóge ci yàlla moon la ko beneen bi lu nekk sa xel la comme nga yendoo fulbal ngoon nga tëdd di kaj ji bi rek beneen bi nag mooy bi seytaane di def mooy di la tiital di la wan ay deret di la wan ay néew ngay tiit ci guddi gi loolu bu boobaa ma joxe fa muslaay kuy tëddati ëffal sa loxo tarixul walaaw falaxi naasi raay sa yaram ëffaat sa loxo tarixul walaaw falaxi naasi raay sa yaram ba muy ñetti yoon booy jàngee ay tuuti ak amna rasul yonent bi nee ay malaaka ñoo lay garde ba bët mani ñu wër ba sonn laa soxla. mais nag du ma génnagun foofu ba léegi. danga nga maa limal ku rab jàpp li muy gént mais ba léegi limalu góoma ku rab dul jàpp lu muy gént. ku rab dul jàpp lépp lu muy gént. day nekk loo xamante ne ci yàlla la jóge lépp ci yàlla na génteem gént seytaane la loolu wax yonent bi la salaa salaam sama wax de. mais comme li nga waxee critère ne kuy rab jàpp lii ngay gént. ku rab jàpp du gént lu bari. Ah, lu bari déedéet. koo gis muy gént gént yu bari kooku defaa amee rab. kurap rab jàppul doo gént lu bëri dedet léegi rab nokoy lijeenté lijjante ndox mu wéx tal mu ndaw lañ koy amul rendi amul dara ci kàttanu yalla bi izni la nga hmm. oh loolu do ko jox ay càngat ak yoy non bien sûr bob kay ci la bokk ak ay ñaan dama lay jox ay càngat jox la ñaan ay ñaan yoy def bo jullee suba ak takusan ñaaneem te ni bo tëddee boo ko defee ci bopam dañuy daw xolal kay ma wax lu bari wul amna na comme rap ni rab moo yow gis nga léegi wan naa la ko léegi. mo waroon mu waroon témoin mais dafa wax lol ci télé bi. bi makai bi téye bi mu ñew makay fajj bima bi ko joxee càngat bi ba mu ñëwee xam nga lu ma wax. dani ma dafa gënt te càngat yi man sama càngat kuko sango gent, ci une semaine da ngay gënt li ci ëpp ci doomu aadama xana bi daw mais da ngay gënt même bu dé dañ la njabar dang koy gis. mu ñëw mu ni euh, mu ni ma man dama tëdd bu guddi gént gis benn kuskondorong mu toog sama kanam bi mu toogee sama kanam ma dàq ko ni ko yow loo fi wut mun ma fii mooy sa place sama place si awraam foofu la toogoon awra waa ji la toogoon moo ko téyewoon bi mu defee loolu la bis boobu la dem bi isnillahi taala léegi rab dina jàpp ku sell wala. Hmm. di jaamu yalla di gor di selal ñooñu la gëna bëgg ndax ngir mu yakal leen fi ka da nga dégg nit ñi naan mu jigéen buy rab da koy japp ku jëmbu xam di feñ rab da koy japp ku sol lu gatt rab da koy japp ku dul japp rab da koy japp ba nit ñi yaakaar kon ñu sell ñepp amul ku ci mucc yent bi neena ñepp am nañ andando yent si sallallahu sala sala mu ne ñépp am nañ andando muy way mom andando mom tuub na ma nga baqiyé di jàngale alquran légui nit ki nak ci mbaxam lay lu ba àndandoom tuub nekk ci jàmm waaye ñépp moom am àndandoo waaw jërëjëf euh, Alioune Fall foofu leer na nañ ñu ñëwaat ci beneen mbir ci feebar yu doy yi muy hépatite be foo ci topp hépatite ah. nit ñi da ngay dégg tubaab naan mënuñu ko faj ah. dangay dem dañ naan la bàyyi lu saf bàyyi lu niin bàyyi lii man hépatite boo ñëwee ma jox la sama garab ah. nga jël ko 15 jours nga dem def analyse nga ñëwaat ay caaxaan laay wax de man dama damaa. déedéet nga dem nga ñëwaat da nga ne nga def analyse ñëwaat rek loo ci foofu. ñëwaat mu wér ñun la hépatique dañ na su dee rajo boo ma déglu am na ñoom tamit def faj naa leen rajo ñu dem def euh, analyse hépatique ñëw ñu. léegi hépatite bee kim dal nan lay xamee ne moom mii moo ko dal si ñi nu muy demee. bëri na ñoom tamit dana nekk seen yaram duñ ko xam fekk dose bi mais bu ëppee ba dem ba commencé da nga gis fii côté gauche bi nii fii day diis xol bi day jam xol bi day jam ba pare fii day diis ki am dal ki ki bëri ñuy wax naan dañuy faj bo leen ko laajoon buñ la ko wax wala nga wax ma yow wax wuy ma wax ma yow bi nga commencé faj ba leg mën nga fi wax kenn nga laaj ko ku hépatique bee dal mu wax la ni la koku fi day diis waxal nit ñang lay seetaan waxal gaay li ni wax tamit day wuté de li nga ma wax ni ëlëk kenen dina ma wax la de xama xama yow yaangi ni man gis na ñu bari ñu ne seen garabu ndoxu siti boko ko ni lay démé yow sa garab tamit nga ne ni ma bëggoon xam xama nga wuur moy wóoru xam ñoo bok ni feebar yi ma mën kenn mënu ma ci xana lu mu mënul way lu mu mën nit kuy dund mënuma ci. ak boppam. léegi ñëwoon ci infection. mooy infection infection six jours la. ci kattanu yàlla bi iznillahi taala wax naa nag fajuma. waaw garab yi fajul yàlla mooy wéral. Ah, yàlla moom xam naa dalay déggal. yàlla mooy wéral xam nga lu tax. ñi ma ci jaaral yépp fa lañ fa laa ñoom ci foofu. Mm-hmm. ñi ma ci jaar yépp fa laa ak ñoom faj la ko ci six jours. looloo xam ma am sañ-sañu wax loolu. infection moy la non la nit infection bokku na ci moy da ngay gis ku mom la nit ñi di wowe lele sopis moy da nga gis muy saw dret wala ngay saw muy metti lolu bo ñewé insha allah taala ci six jours da ngay da ngay saw normal wala ngay saw ba paré bo paré lu wéx di génn sa kanam wala boy dem ginnaaw ko lu wéx di génn da fay jur benen feebar moy day dem ba jur télé ci goor man na dem sax ba jural ko hépatique li wax ni infection moom baaxul. dañ ko teel góor ak jigéen yëpp moom lañ jigéen ah perte blanche di leen dal seen kanam gi xasan affaire yooyu. Mhm. jërëjëf Alioune Fall ñëwoon ci ngóora wàllum ngóora ba xam. kooku moom kooku moom maa ci daj dëpp di kooku maa ci daj dëpp di kooku xoolal xoolal. Mhm. man maa ci daj dëpp gi man ci ñetti fan laa koy faj bi iznillahi taala ak bu mën a doon. xoolal man ñi wër ba sonn laa soxla man soxla xam man ku ma bëgg. yaa ngi wax lu rëy ma bëggoon xam ndax da ngay def lu rëy. nag balaa balaa ngaa gën a mën a xam man. man xoolal mës naa man suma ma ñëwee fii am lu ma wax comme eh, client ñëw am di ma indi ay dund nii. loo yaakaar laay def. damay ubbi bunt bi woo client yi nekk foofu yëpp ñu leen kaale yi ñu toog fii kan laaj faj wérul. kan laaj kan yéen ñii ñii toog ñëpp. man amu problème boobu xam nga li ma wax lu mu mën mën naax lu mu mënul mënuma mais dama ne ngóor ñett fa naa la wax nag ni nit ñi bàyyi li koy indi tële mooy képp koo gis muy masturbé wu maanaam waaw foo kanamam di masturbé wu day indi tële mm-hmm. képp koo gis muy seetaan film porno yu bëri yi day indi tële koo gis muy jël excitant yu bëri day indi tële mm-hmm. comme infection te faju ko day indi télé rap day indi télé ndoxum day indi télé yépp nit ki il faut mu moytu ko. yi bon lekk yi man dañuy wax les mais lekk yi am ay saf-safal ñuy télé mais dafa am matériel bu nekk ci biir ci xol nit ki fi direct bi sanni buñ ko moy tax télé indi ñew yow yow loy lek loy lek. bon man nak euh, sama loo digal xam nga digle lekk danger la nit ku nekk yaram bu nekk daa am lu mu nangu am lu mu bañ. Ah, en même temps seen yaram suukar la ñu war a lekk mu gën ci ñoom. en même temps moo gën ci ñoom mais boo nee dee lekk suukar nit ñi xëy suba ñëpp jënd suukar lekk ko ah borom jabet yi seen jabet yi yéeg. Mm-hmm. ah kooku euh. danger la waaw. wala lii laay lekk nit da fekk un may lekk xaw ma konkoron xaw ma mun ma ndax daa baax moom pour ñoom li ma war a lekk dañ ko war a lekk déedéet ku nekk daa am lu mu war a lekk. ku nekk sa yaram li mu war a lekk laaj. jërëjëf euh, Alioune Fall ñëwoon ci cancer feebar bu doy bi nga xam ñëpp jàpp na ne moom kenn mënu ko waaw cancer aaj bi iznillahi taala ci kàttanu yàlla su fekkee neewiwul moom mën naa ko mais bu neewee moom mënuma ko ku sa bos neewi romb ma naale waaye ku sa bos neewiwul bi iznillahi taala mën naa waaw noo jege si kooku moom maa la. ku am cancer nan lay xam ne moom mi cancer moo ko dal. waaw xam nga hépatique day indi cancer. waaw c'est nag man bëgguma woon détailler ak cancer. xam nga nit ki mën na toog gis signe bu xaw a mel ci moom nit ñi seen xel ñoo feebar ci boppam. gis signe bu xaw a mel ne moom yaakaar ni dafa cancer dootul nelaw guddi fi mu ne nii ba bët am na problème. ma indil ko problème loolu tax bëgguma ko détailler mais képp comme te ni yëg na dara ci yaramam na dem xooli yaramam. bañ ne ko dafa cancer. léegi bu soxal jigéen ñi nag ku mënul am doom. boobu da nga da nga wax da nga ci wóolu sa bopp bu baax sax. kooku am naa ci cas am naa ci ay cas. ji da nga ne am naa ci cas am naa ci ay cas début bi day mel ne benn la après mu mel ne. am ci cas am naa ci ay cas. waaw yëpp noo ko lijj noo ko lijjantee. Ah, mbir mi nañ ko yàlla ba tey nit day ñëw léeg-léeg di ma gërëm ni ma dénk naa la sama njaboot dama koy defalu lu rëy mu gis ko mun ma dénk naa la sama bopp ak njaboot ju man ko déedéet. dénk ko yàlla wallahi jaam laa jaam bu ndaw bu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ci kanamu jaam yi jaam bu ndaw su ma yàlla seetaanoon tey bu neexoon yàlla ma boole ma tey ci feebar di faju ji su neexoon yàlla tey rab yi may wax maa koy dindi nit ñi bi iznillahi taala yàlla jël ñooñu ñëpp dugal ko ñu benn mës naa dugg ma koy wax nii ci une semaine mënu ma xanaa da am kuyu jinne man ko awma ma xudaan ma rawaan aw ma aw ma lenn yàlla rek laa si yaakaar bu si yàlla yi génnee ma torox ci àdduna même ñi nga xamante ni cas yooyu ma la wax ci wàllu jigéen bu mënta am doom yaakaaruma ci keneen ku dul yàlla te dimbalikoo ma ci keneen ku dul yàlla saa yi bu nit ñëwee dama naan la dimbalikool yàlla ma dimbalikoo yàlla yàlla dimbali mi yàlla mu doy ko doy na ñëpp daal defe naa ku wala bu ko bëgg lu baax dina la doy euh, nerf sciatique ñëwal ñu foofu ba xam nerf sciatique moom ko koo faj man munuma faj nerf sciatique garab bima ci am da koy sédal rek té bëgguma ñak résultat sama ak nit mo tax ma leen nerf sciatique moom ko faj ndax nerf moy mooy sidit bu coincé la sidit bu coincé man munuma la jox garab bam dañ ya xey ci man mom munuma ko muno ci dara pour muy leer aha léegi ndigg ndigg kase du génn une semaine te wéru incha allah ndigg kase waaye nerf sciatique ak ndigg dafa nuru mais bu dee ndigg kase du génn une semaine te wéru teg tegtal ñu gën ko yaatal xéwal dikk loraange dakk bindalal maire bi foofu bu dee mënul bindal boppam pa bi bët yi neexul bindal ko ah bind nga numéro bi ki wax ci saal bi na nopp numéro Aline Fall nekk ci Pikine tali bu mag ci wetu fi ni defaree matlaay kii lal yi bind nga 77 605 16 55 77 505 16 55 bindal beneen bi 77 148 54 54 77 148 54 54 Alioune Fall nekk ci tali bu mag Pikine nga fekk ko fi nga diis ko sa soxla lu mu ci man mu def ko leneen li ñu bàyyi yàlla mi ngi xam ne ko tëlewul dara te mën na lépp Alioune dara dérapano lan bëgg na nga ñëwoon ci moy lan ak ku dal na lay xamé ni mo koy dal la lan nga la lan nga benen bu mu tan mënu mako koo dara dérapano moom mënu ma ci dara dara dara dara mënu ma ko non lu ma mënul du ma mënu ma ko lu ma mën kenn mënu ma ci ah, mënu ma sax aw ma sax lu koy calmer jëmu ma ci dara so mako wowe sax ma téléphone ma la sax bu ñëw <laughs> deng xamal lan la bëgg man man résultat la bëgg moo tax may ñaan ñépp ñu tawat yàlla na leen yàlla saafara képp ku am njàqare yàlla na ko yàlla teggi xam nga da dégg sëriñ si naan ku aajaam narul faju yàlla bu ñëw ci man man dama naan ku ñëw ci man yàlla na sa yàlla aaj say aajo man man loolu kuñ liggéey kuñ liggéey bi iznillahi bu ñu liggéeyee nit ci kattanu yàlla insha allah du génn une semaine mu kattanu yàlla liggéey dafa bëri ay façon liggéey dafa liggéey dafa bari ay façon am na liggéeyam tani dañuy sëf nit ki def ko ci guy jël ay mbiram turu yaayam turu papaam ak ay mbiram sëf ko daaj ko ay pont na nit ñi bàyyi liggéey ma mayaat la beneen est-ce que rab day liggéey nit waaw rab moom est-ce moom rek doyul problème bu ci tegaat liggéeyaat nit fu mu jëm te sëriñ ci xamuñu ko ah. rab day liggéey nit du samay wax de yàlla moo ko wax ci alxuraan baada audu billahi min asheytan rajim yuallimuna annaasa sixra ñoom ci boppam ñoo jàngal sax nit ñi njabar kon imam Alioune Fall bi nee na koy woowe Alioune Fall mais fii moom imam lañ koy woowee parce que li tax ma koy woowe imam dafa am jàkka joo xam ne que juma boo xam ne que ajjuma moom moo fay jiite 2007 ba léegi di fa def xutba yu doy waar ak mbir yu doy waar askan wi di fa fees dell jox ko bopp jox ko cër ñu dem seetaani loolu te ñëw أنفسنا أو أشد فحبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له أو سفر لا رجوع له أو موت لا حياة بعده يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين عباد الله اعلموا أن الكفر ملة واحد فلا نتخذ عدوكم وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة بالمودة وقد كفروا بما جاء جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون تصرون إليه بالمودة وأن وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يقر منكم فقد ضل سواء السبيل وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليكم قوما غضب الله عليكم قد يئيس من الآخرة كما يئيس الكفار كما يئيكم كفار من أصحاب القبور عباد الله إنما يحدث في العالم ليس بجديد مقجلتي جنابني سنت سنت جين كوي سنت مم بتبارك وتعالى دو سنت لين لدول سنت جين كو سنت لبلوم نيوحتي القرآن نيوحتي تكس نيوبت سنت موي نيون dëgg gi ñu yàlla saxal ci ñun ñu ngi koy gis saa su nekk mbokk jullit yi ñu ngi seede ci borom bi tabaraka wa di seede suñu bopp ni ñun dey ku bëgg sunub yonant la Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg sunub yonant la ku gëm suñu yonant la ku fonk sunub yonant la Muhammad sallallahu alayhi wa waaye dañu nit nag su yoree dara te xamu ko du xam lan mooy njariñ bi mbokk jullit yi دانا نو ديفاندر يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم كوم ني ني ديفارين سونو بوب ولا نو گنا تار نونو ندخ لي ليك سونو بوب دو نو جارال سونو باكن وايي تي ديفاندر يونتي صلى الله عليه وسلم جارال نا اي جوليت سيني باكن لي ليك نيت كي نو تون كو مو بالي وايي nga لال تي يونتي صلى الله عليه وسلم مو جوخ لا باكن كون نو گنا تار ني ني ديفاري سونو بوب گوگو خامتاني تي يونتي بي صلى وسلم koku nga xamanteni mom moy gën gi mbindef koku nga xamanteni moy gën gi mbindef fa xubbuna nabiyyana muhammad sallallahu alayhi wa sallam bahrun la sahila lahu aw safarun la rujua lahu aw mautun la hayata ba'dahu يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain bëgg gi ñu bëgg yonente bi alayhi wasallam gëm gi ñu gëm yonente bi alayhi wasallam top gi ñuy top yonente bi sallallahu alayhi wasallam boko natale won mu ngi mel ni geej geej gu nga xamanteni amul delu waat te amul tefes geej gu tani ni fei, féey ba lab ci biir ba dekkee ëlëk aljana waaye amul tefes bu ñi utti ci way ci bëgg gi ñu bëgg yonente bi alayhi wasallam bëgg gi ñuy bëgg ci yonent bi salaa dégg ngeen ñu ni tukk bu ne am na delluwaay waaye bëgg gi ñu ko war a bëgg mooy tukki la nga xamante ni duñ ci delluwaat mukk ba ba ñuy téere ji ànd ak yonent bi salaa sallam di dekkee ji firdaws bëgg gi ñu bëgg yonent bi salaa sallam yàlla na doon ci ñun feebar bu dul wér yàlla na doon ci ñun feebar bu dul wér bëgg gi ñuy bëgg yonent bi salaa doon na ci ñun déegomte ni dootuñu dekki mukk mukk mukk ci kanam yonent bi salaa sallam mbokk jullit yi Moustapha nee na ci yàlla yónni ci ñun nee na day yéen jullit ñi lay wax kenn ci yéen doo gëm yàlla am ngëm gu mag lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalaa gënal sa bopp yow moomu ba bu intérêt yonent bi ñëwee intérêt islam ñëw nga daal di bàyyi sa lépp daal di topp yonent bi loolu ma wax mu ne mu gënal la sa bopp gënal la say njaboot gënal la say doom gënal la mboolee doomu aadama buy dund ci kaw suuf dégg ngeen wax ji wa naasi ajmain mboolee mi doomu aadama yépp ci kaw suuf na la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal ñooñu tey amul kenn ci àdduna ku nga xamante ni war na taxaw ci suñu kanam ñu koy xool gët wala aw bëgg wante ni yonent bi salaa sallam du koy gënalee kooku mbokk jullit yi ñu bokk yàlla bokk yonent bi salaa sallam yéen ñi nga xamante ni suñu waxee yonent bi salaa sallam seen xool am lu ngeen di yëg suñu tuddee yonent bi salaa sallam ngeen am lu ngeen di yëg ndax yenent bi li mu defar jullit ñi moo ëpp foofu ci àdduna gis ngeen li mu defal jullit ñi njariñ giñ ci am lépp luñ ci am ci lu baax li ñu yonent bi defal beneen bi mbokk yi ñu delluwaat tuuti ci yonent bi salaa li mu defal adduna laa wax li mu defal adduna li mu defal adduna kii jullit ak ki dul jullit kii jullit ak ki dul jullit ñépp jariñoo ci ay xéewalam li leen yàlla def fàttaliku leen bis ba yàlla di ko wax lan nga bëgg ma def mu mënu ko yàlla baal leen dañoo xamul ndax bu ñaanoon yàlla yàlla du tukkil àdduna ndax bu ñaanoon yàlla yàlla du tukkil àdduna waaye tey ñooñu ci ñaanub yonente bi la yàlla bàyyi seeni ndigg di soqeeku di soqeeku ba ñii tey di tooñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di soqeekoo ci ndigg boobu tey bu yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanoon yàlla yàlla def li mu bëgg kon kooku jariñ nañu jariñ na ñépp ci àdduna kooku moo yaan yàlla yàlla boo alak sama xeet yàlla boo alag sama xeet ana xeetu yàlla nuux yàlla alagu leen ak ndox anaxeet xeetu yent yàlla luut yàlla alagu leen ëlbati suuf seen kaw waaye yonent bi dafa ñaan yàlla ne ñaan woowu yàlla nangu ne ko yàlla du alag sama xeet mbooleem lu ngeen mën a def loolu ñoom ñépp àdduna ñépp waroon jug loolu ñaanal ci yonent bi loolu rëy woowu ma leen defal lu rëy loolu waaye tey bari na woon dëkk yam te ni seen ko yonant dañ koy tooñ yàlla alag leen كي موم موي گن گيمنديف والله كي موي گن گيمنديف مرو بروم بي تبارك وتعالى موني وان كنتم تحبون الله فاتبعوني سو فكي بگ گين يالا بگ لين توپ الله يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم موكي واي ناني خامني ييفر موم بن باتش لا رك سي امول بي ييفر بو نيول لا امول ييفر بو ويخ امول ييفر بو ويخ ولا بو خوم نيپ بن امول كين كو سي بگ صلى الله عليه وسلم moo tax borom bi tabaaraka wa mu ni di aay jullit ñi ñuy far walla ñuy bëggante wala ñuy jàpp noonu ko yàlla yeneen yonentam di def leen ñooñu ay xarit wala àndandoo wala di bëgganteek ñoom di am mu ni loolu de képp ku ko def mooy ñi nga xamante ni yéeféer yi nga xamante ni ñoom ñoo génne woon yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ci biir màkka ba yonente bi gàddaay lislaam la ma yàgg a wax dafa yàgg ami noonu lislaam dafa yàgg ami noonu ñu génn yonent bi génn ay saxaabaam daal di leen di sonal waaye yàlla tabaraka wa taala génn googu saxaaba yi génnoon ci sàkk ngërëmelu yàlla tabaraka wa taala akub buur bi nga xamante ni waaye yàlla mu ni képp koo xamante ni def na lu bon loolu bañ nga yonent bi salaa alayhi wa sallam yow réer nga réer gomte ni dootoo gindeeku mbokk julit yàlla tabaaraka wa taala waxaat ba tey yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla bu leen méngoo wala ngeen di far ñi nga xamante ni yàlla dafa wàcc ci ñoom ak mer yàlla metti na ndax bàkkaar yu bon yi ñu def ngeen koy def mu ni ba nga xamante ni mooy ñu weddi ñooñu nga xamante ni ñoo bokk ca waa bammel ya mbokk jullit yi nañu bàyyiwaat xel bu baax mbokk yi amul benn mars bu jar ci kaw suuf ñuy mars di farak ak yéeféer même bu ko président defee rafetlu wuñu ko am du tak li nga xamante ni moom la borom bi tabaraka wa wax ci alquran amul benn intérêt moo tax yeneen bi mu ni moom moo lay gënal mboolee mi doomu aadama yëpp amul intérêt boo war a gis ci kaw suuf amul kenn waru cee far ci ñooñu nga xamante ne ay noonu yàlla lañ di noonoo yàlla ak yonentaam sallallahu alayhi wa sallam mbokk julit yi gii ngeen gis ci jamono jii tey mu xew wallahi yàgg naa xew lii ngeen gis mu xew nii ci jamono yàgg naa xew muy lan seen jëf ju bon ji ñuy jëf jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne tey lañ ci benn xutba waaye tey ay xutbaay xutba ñu ngi ko ciy def ñu jiitu woon it ña ngi cay wax waaye loolu bu amee su amul woon beeboo ñu am sikki sàkka ci alquran يلا موكو وخ يننتي صلى الله عليه وسلم نيكو دغا ديغ سي نيوم لا تسمعن لا يلا لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا ديغا ديغ لا يلا لي اك غم يلا لا ني دولي والله اك غم يلا لا ني دولي يلا موكو وخ يننتي بي اي سيكل سيكلين مونيكو ديغا ديغ سي غا نيغا خامتاني ñooy borom téere yi njëkk yi danañ la jéem a nattu ci sa alal di la jéem a nattu ci xaalis defal la lépp nga di nga dégg ci ñoom ay lor waaye dégg yàlla wax la tasmaunna di nga dégg te yàlla nunu tawkiit la indi asaqil daf ko dëgëral ci wax jooju di yàlla wax dégg waaye waxul ni dañ la lor de di nga dégg rek dund nañoo ak ci bi salaa salaam di jéemi seen i pexe di def lu ne waaye dégg rek la ñuy yem waaye mënuñoo lor islaam dara wallahi chaque jour ñi ñaa ngi tuub di dugg ci biir diina gi mënuñoo lor islaam dara wax ji ci dégg rek lay yem wallahi ci dégg rek ndax bu ñu mënoon fay nañ islaam fay nañ islaam waaye saa su nekk nit ñaa ngi tuub leen jaaxal mooy taux yu dugg biir France jullit ñuy gën a gëm biir amerique nit ñuy gën a gëm di gën a gëm yonent yàlla Muhammad salaa salaam li leer la buy dem amul lu ko mën a téye الحمد لله رب العالمين nekkoon nak fi ma joge ni xamna dina len soxal trop numéro bi may maa ngi leen koy jox lol mais imam li mom duy tricas te defe na nit ñee fayo len pour ñu ñëw fa mëno li nan luye ay ces yom na ak baas mais luye nit ñi mom yomu ñu surtout nit ñoo xamna ne ci diina la ñuy dox. dama ni aljuma bu nek waaw sikki sak ak sama imam. waaw aljuma bu nekk bo ñe escouade ci jumaa ji di nga ma fekk may jiiti. def khutba ci arab ak. di xutba ci arab buma paré fi ko ci olof lol la ray ba fi sikki mhm. nek kon daal léegi côté boobu imam bi leer na daal te boo xutba léegi day tàng jër nga koy boole ak waaw man ci actualité laay dox ci laay wax mhm. waaw nee na xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale te bugg naa bokk ci gën ci nit ñi amul lenn lu ma koy dindiloo beneen bi mooy euh, faj nit wala dindil ko feebar wala leneen lu mu àndal nga dindil ko ko kooku tiyaaba yonent bi képp ku din dindil sa mbokk jullit njàqare yàlla dindil la njàqare googu àdduna ak yomal xiyaam moo tax kon yooyu ay buntu tiyaaba mais nit ñi xamuñu ko léeg-léeg ay dóor marto lañ koy def yenn sëriñ si dóor marto lañ koy def da ngay gis sëriñ na damay faj ndoxum si di boo demee wee yaa nga ñuul kuk kooku moom moo war a njëkk a faju avant muy faj keneen yaa ngi dégg moo tax mbir mi tiyaaba la jaamu yàlla da cee nekk bu rëy moom jiital ko ci daal mais tamit mais tamit est-ce que xaalis bi ñu bari tamit askan wi dañuy jàmbat ne fii Sénégal ko fi feebar sax muy ci hôpital yi yëpp sëriñ si yëpp booy yorul xaalis moom daanaka mën nga jege ji fële ñu jàngale fukk xuloo ak benn. waaw foofu loolu am na am na ñu yeyoo dimbali am na ñu yeyoowul dimbali. ñenn ñoo yeyoowul dimbali. ñu yeyoowul dimbali mooy un benn nit mës nañu ñëw ma leen di fajal feebar. febram tamit am na ci ñoom presque jege na 10 ans ñu ñëw ci kàttan yàlla saraxuma ma may leen fajal leen ko ma génn un jour ñoom ñu jiitu ma ñëw bi may ñëw scooter bi ñu gaare te ñoo ko moom chaque nekk chaque jour bañ ñëwee nga may leen ñooñu est ce que yow nañ dimbali ñoom yéene nga leen a jox sa garab waaye ñoom yéene wuñ la jox sa xaalis beneen bi mooy Cheikh dimbal dafa war ci àdduna xataa yow nii Sénégal la nga leen a war a dimbali yow même tamit yaa ngi woo ñi leen mën a boole leen ñu tegg leen seen yàqare cheikh senegal ñoo la wara dimbali moy sëriñ ci ngay dal nak nit ñi dem fenen ba seen aaju faju ñom ku nekk war nañ la dimbali tay war nga am auto am 4x4 ah, ah am am air plus 100 ah, waaw xam nga waaw yoy yep war nga ko am xam nga moo tax dimbal ki yeyoo dimbali dañ koy dimbali yalla bamuy wax sarax dafa am wax inna ma sadaqa lil fuqara sarax ngir ñi nga xamante ne dañoo ñàkk ku awlu ko mënul ko war nañ ko dimbali te surtout foofu ngay wax doguma la émission bi yéene bi ma ci am lenn la mooy na télé bi am li mu bëgg sëriñ bi am li mu bëgg askan bi am li mu bëgg lim li bëgg maa ngi ci biir télé bi maa ngi ci biir askan bi dafa am loo xam ne que nag liggéey lu baax da nga dajeeg lu ne mais amul benn sëriñ bu ñu fi seqali ki wala ñu li ñu bëgg mooy képp ku ne ñu jox la numéro bi mu leer nga dem heure bu ne fajar yu ne dañuy woo di nu laaj numéro diw ñuy joxe di sonn yooyu yëpp nag ngir askan wi am li ñu bëgg lay doon fu ñu jullee tamit loolu la ñu ñaan ku amul suñ fay yàlla am na suñ fay daal loolu moom doy na ma côté boobu daal. ñu wér ba sonn laa soxla Cheikh. ñu dem fu ne wéruñu. man boo boo dem fenn sax ñëw ci man doo xam doye bi dëgg dëgg dëgg. léegi pour fi nga jaar ak askan bi am na Simon Sène laa tudd maa ngi nuyu téléspectateurs yi déglu seetaan. LCS man nak bo len ma laaje di nga maam si sëñ bi wax ci dina ma neex ndax di nga dama andon dama andando go xamne soxor gu mu soxor jeegina dayo rax ci dolli and ak ndox sotti gu metti metti metti andando bi nak señ bi dama deglu émission radio rajo mu wax ci ay firndel firndel yoy moma xamal ne man mi ni dama am andando muy bu ci njëkk bi moy lat mu ne di nga maam bo ànd ak ñaar bo amé andando ñaaral da ngay gënt di nekk ci ndox boobee bu njëkk bi ñaareel bi mooy maanaam di nga maam da ngay bëri looy seey ak jigéen loolu tamit firnde la beneen bi mooy maanaam da ngay gënt di naaw ma ñëwee ci moom nag mu jox ma mooy maanaam ndox moom weex moom mu wax ci la ma jox ndox mi jox ndox mi la ma njëkk a jox na ma demal lu ci am nga ñëw wax ma billahi wallahi talay duma ko fatale ku bésu aljuma la dama ko sangu tëdd nelaw keroog dama biddanti lu masta am dañ ma yee xam nga nelaw kuy gént di nelaw lu gént nelaw ba biddanti ko xam nga koy gént wàcc na la hmm. waxu gént moom dama ko tegee côté ma ñëw ci ndoxum siti mi sama bët yi dañ doon xelli ba di nga mam fa tubaar kala ciy génn ci ndox ko boo ko xiimee toll na ni kaasu ataay ak léwél lii moom maa ko wax fii bu leen jàpp mbax ay ay waxu mbalak walla ay kafu rek da di loo xam ne dafa dëggu ci man ma koy wax ma koy ñaanal tawféex ak manoora ak yokkute di koy ñaanal yàlla dàqal ko lépp lu seytaane musiba ak balla rawatina équipe bii mu àndal yàlla boole leen juboole leen dàqal leen seytaane. lan laa tudd. sëriñ Aline Fall moom suñ ma si laajee dama siy kontaan bu baax a baax a baax a baax parce que nee nañ nit ki boo koy seedal day fekk yow loolu yaa ko dund te man li may seede man maa ko dund keneen dund ko te damay waat balaa may wax damay waat billaahi wallaahi taala li may wax bu dee du dëggu si man bu ma fi génnee bu ma génnee fi yàlla bu ma yegg sama kër dama wàcc ni liggéey jaar fi Aline Fall mii man amul fu ma demul fu ma demul amul dëkku séeréer boo may wax dew fu ma demul du Guinée Bissau bu ma demul Casamance sama xaalis dañ koo lekk lekk man ki ma mujjee fat gumba la buy raam doxul sax day doon raam lekk sama xaalis li ma li ma faj lu si gën a ndaw si xaalis li ma fay juróomi junni laa fàttali ko moo si gën a ndaw te mosuma si gis résultat yàlla def na nag sama jëkkër moo doon déglu rajoom sax jël numéro téléphone am jox na ma ko ñaari yoon chaque jour may fënaten du ma ko woo soo wootee man dama sonn léegi soo wootee dañuy lekk sa boobu kooku sa sëyaguma ak moom mu ne ma demal rek gis na bi ma ñëwee këram bi ma ko gisee dama kaa xeeb yàlla rek a tax may wax ba ma ñëwee dama ne nii sama jëkkër man kii munumaa faj kii dama kaa xeeb kii nga xam ne ne maa ko magee sax ñaari weer maa faj sama jëkkër forcé ma ba sonn ne ma demal demal rek demal premier jour bu may njëkk a ñëw mu jox ma garab daf ma wax lu leer te nu ma ko fàtte mu daf ma ne boo demee di di sangoo garab bi di déglu arxuraan bi ma lay wax bu bu sept jours yi motee di nga daj bopp buy metti boo xam ne ne musoo ko daj te ba ma juddoo sama ndey ak sama baay la daj naa bopp buy metti boo xam ne ne musuma ko daj ñaareel yoon bi garab bi bi ma koy sangoo tëdd naa ba guddi gis tekke bu tiim ne ma garab bi sangoo boo ko bàyyiwul dama lay rey ma ñëw wax ko ko sangu naa garab bi jóge si suuf ba si kaw tëll si suuf rab amul fu ma demul faru rab amul fu ma demul yàlla xam sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal nag fajuma kese rek yem si de daf maa defar parce que xam nga lu tax ma ne daf maa defar parce que jullit laa doomu jullit laa doonu ma woon julli doonu ma woon woor te la waxee doonu ma woon julli doonu ma woon woor xaw ma lu bëri te doomu jullit laa te moom moo ko def si man tey bu ma demee ba nga xam ne lu su ma jàppuwulee sax damay mel ni day am lu nekk si man moom mii moo ko def si wallaahi azim dama koy ñaanal nag fumu fumu xam moom fumu bëgg dem rek yalla naka fa yalla yobbu di len siar yeen ñepp tay rafetlu li ngeen def ni seigne Aliou Fall mom liñ mëna wax ci mom bari mëna wax ci mom bari na parce que nit ku nekk bo waxe sa diggante ak yàlla ngay wax ta nak ku gis nen leen na ngi te man ma gi gisal sama bop ma tok déglu ko ñaari fan ma déglu émission ma gi ci sama bop ta toogoon na ni duutuma dem fenn nak man mako ko ma maa toogoon duma man febar yi ma daloon moy affaire setan da ci amone muy muy jinne lañu ñuy xuma ndax dem naa fii fay 200000 jox ko nit mu ne ma garab yi ma lay jox soo ko sangoo bis sàngam da nga gis nangam ma sangoo ko gisuma dara jóge naa fii dem naa ba kawlax jóge naa fii dem naa ba Touba jóge naa fii dem fu bëree bëree bëri sama xaalis lekk nañ ko ba sonn te gisuma dara amul garab gu may sangu sax naan maa ngi xaw a gis nii wala xaw a gis naa amut te yàlla te yàlla nag lépp da koo def ci alquran wa maa nunassilu min alqurani maa huwa sifaun wa rahma def naa suñu suñu uh, ustaas xam na loolu maanaam saafara yépp yàlla da ko def ci alxuraan kon alxuraan moo ñu doy te man daanaa dem nit di ma sang ci xàmb mais daaw ma ci gis résultat te yàlla xam na ne bi ma ñëwee fii ci moom mu jox ma ay garab ne ma demal def ko ak fii ma toog di wax nii su ma dee sama wetu ndeyjoor laay laloo maam daree àdduna jorul may wax lu bu xuma la tane de paase naa tane paase naa tane defal na ma lu lu lu kawee sama njort bokk ci misaal tey jii su ma noonu defal na ma loo xam ne ci àdduna nit musuma koo defal te muy ñëw am sama problème de ak sama jaaxle gàddu sama saak ñëw toog bi ma ne ko sëñ bi lii mooy sama feebar mu mënu ma nanga ma nanga ma wax jox ko lépp mu delloo ko ci yàlla. bi laa déggee turam dégg émission am mais daal bu ko xàmmee léegi ça même pas mois et demi mais man daal maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. ndax euh, hémorroïde ak euh, ndoxum siti affaire bi yàggoon na ci man mais xaw ma ko woon. ci jëloon naa ay antibiotique fu ne dem naa fa tout ça mais bi ma ko xamee léegi daal bu ma joxee garabam ba léegi daal je me énormément mieux waaw yeneen jàngoro yi nga xamante ne yëguma ko woon sax même ay tayal ak ay lu nekk dañ na ci sama yaram maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla fayal boppam yàlla na ko yàlla fayal boppam jërëjëf euh, mbokk yi seetaan seen émission tegtal sëñ Alioune gis nga askan wi nga xam ne que am na foo jaar ak ñoom ñuy waxee seen digganteeg yàlla ci faj boo leen faj yu mel ni li lu mel ni bu amee pare yow da nga koy bàkkoo wala da nga koy sant yàlla. amul benn nit bu ñëw jëflanteeg man ñëw ni ma gis naa ci résultat loolu dama naan nañ ko yàlla amul mbir mi du man wax naa leen du man man gisuma ci sax sam bopp. gisuma ci sax sama yëguma ko sax yëgaluma ko sax sama yaram mbir mi yàlla. mais nit ndax nit mas naa ñëw takkal lay pot ne la li ma doon wax moom da ma ba ma déggee ba ñëw mais bi ma ñëwee gisuma. am na ah. takkal nañ ma pot. ngan na sax. xam nga nu mu demee mooy waa ji ma ne nan kuskoon rek moo toogoon fii. Ah. non dafa am erreur dañoo ñëw man du ma nekk fii di ay làq làqal nëbb nëbbal de. Ah. après mu ñëw mu ni ma. yeen fi ngeen di tok ah, kan? si radio yi di wax bu ngeen jugee nan da ngeen di fagn ni te nit ñi wéruñu mo wax ko ki yor Lamine mi yor sama téléphone man ah Lamine koku da jundé lool man ko moko dé an ko ah mu ñew man ko léegi nekku mu ñew waaji ñew ñëw ma ko mënu ma waaw li ni man ko togal la nga ma joxoon man ma temps ma yëkkati jox ko ma waatal ko ci yalla ni ko buma la mënul fajj bi jappale ci rabbi ñetti fan wallahi lu ma yàlla bu kenn mu wér mu xam li ma wax dëggal mu ñaan ma ni ma dimbali ma ngir yalla nga fajj ma la bëgg ma yëg xaar mu ñaan ma ma ñaan ma ci yàlla juróom mënu ma ko dékku ma ne ko demal ba beneen yoon mu dem ba beneen yoon ñëw non aw may rab yi bon sax mais keroog buure naa man échec laa gën a bañ ci kaw suuf moo tax du ma dugg ci feebar bu ma mënul man boo ma nee wéruma moom moom sama aduna tukki na bi mais à part loolu kan ko mas na la takkale pot kane non non gëw am kenn duma ma takkal pot ndeysaan ku fi ñëw moom balaa ngay premier coob li kay premier jour bi la su may wax ak yow nga xeeb ma wala nga yow xam ki ñëw naa ma ana góor gi ñooñu kay xanaa loolu waaye à part kenn ku ñëw booy tollu ci bunt bi ay ñaan ngay def di yëkkati sa xaalis di ma jox di kontaan moo tax nit day ñëw ci man man ko coow li tey la rek coow li tey mais waa ji dama lay nettal gis na bi mu ñëwaatee deuxième nee na ma xool amul loo ma defalul ci kaw suuf. mooy kii la doon ñaanal ñaan yu la gis nga ko waaye yooyu. léegi ñëwoon ci kun takk xala ak nan la nit di sàggane ba takk ko xala ak ku ci bëgg mu ci nu muy def. ma takk xala léeg ñu jiñ ko nit. fekk na léeg-léeg nit ki rab moo jàpp takk xala léegi tamit ñu jiñ ko ay wujj loolu tamit am na waaye am na xala bam tamit dangay dañ boo demee sa wujj wi du mën bu ñëwee ci yow mën xalaat bu temps bi may naa la fukki xalaat ñetti am. non dinañ ñëwaat beneen yoon waxtu yoon dab nii rek. xalaat ñett am su ñëwoon ma wax la ñaan bu nangu nu muy demee bala ñuy tàggoo tàggatoo ku bëgg a ñaan. nangu ñaan bu nangu. ni muy demee mooy yenn bi sallallahu alayhi dani kii mu ngi lekk lu araam di dundeelu araam di tëdd fu araam kooku nan lay ñaanee yàlla mu nangu nan lay ñaanee yàlla mu nangu dégg nga ñu ne ah mu ni waaw ñaan bu nangu dafa am ay waxtu ak ay heure dafa bëri. yan mu gaaw bala. daal yi Sénégal gën a miin yi gën a gàtt. mooy diggante nodd ak liqaam. na nit ki nangu yàlla day nangu ñaan foofu na fa dugal ñaanam. nit ki bu su ci jëwam na fa dugal ñaanam yaa ngi dégg. Euh, guddig laylatul xadri yàlla dafay nangu ñaan foofu bari na su ma ko doon wax dama wax xool fii ñun équipe lañu équipe équipe ah. ñun ñooy fagaroog faju mm-hmm. ma ne ñun ñooy fagaroog faju fii fagaroog faju ñun ah. fii même ba ma fi nekkul ñu fi nekk aay macha allah sëñ Mbacke Fall mii léegi ah, sama doomu nday sama doomu nday sama xarit ku baax si man muy sëriñ Mbacke Faam nekk Pikine Icotaf marché Kermel wala marché Dimanche noo ko woowee kooku moom macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla rek mu gën a kawe waa numéro téléphone am 76 592 63 62 76 592 63 62 maa ngi gërëm équipe bi ma àndal suñu mag Lamine Lamine Diom moo ñu jiite fi ñun ñëpp xataa mi moo ñu jiite Serigne Mbacke Fall moo yor wenn wàll wi ak suq am naa benn suq bu nekk fii Cheikh Ndiaye Seck. waaw weenu dab de. laay mhm. xarit benn xarit Maodo jaw maa ngi koy nuyu ak sama papa di ko. jërëjëf képp koo xam ne que soxla nga Alioune Fall nga woo ko ci 77 505 16 55 wala nga woo ko ci 77 148 54 54 77 148 54 54 nga fekk ko ci Pikine. tali bu mag di jaajëfal ñëpp ñu nekkoon ci technique bi ëmma look ñun ci benn caméra bi Amadou Kébé réalisé émission bi yor beneen caméra bi madame Fall ci montage bi ci régie bi Alassane tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk jaajëf